Ah, mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci kóllute beeg ànd beeg Walfadjri am mbégte lool feeguwaat ak yéen suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal ci Walf net mi leen di yëggee saay su ne Walf quotidien yéen a kaa bi jiitu ci fajar moom ngeen gis ni ci ecran bi mu yànj lool te moo ne de njëg mi cherul 200 nga am sa Walf quotidien xam actualité bi xam réew mi lu mu yendoo ak la mu fanaanoo ci Walf quotidien mi fësal ci xëtam bu njëkk ñancoo Sadio maane moom la fësal ca Bayern na gamu ne jafe-jafe jafe-jafe yam fay dund Walf Quotidien dikkaat na ci bokk na ci jafe-jafe yi tënk euh, koomub Sénégal te njiitu mag Macky Sall war ci dalal ci lu yàggatul euh, ñi nga xam ne ñooy patronat bi jàkkaarloog itamit euh, liggéeykat yi wal Walf Quotidien ne Idi xëy na ëllëg ci ajjuma ji dina leeral ndax joxewaat na dig daje ngir leeral ci lu bëree bëri moom njiital parti réew mi ñu ngi seen i tamit ci inu Walf Quotidien procès appel Mame ñàkk Niang Ousmane Sonko lu bëri mun cee tukkee euh, bu ñu tàttaanee ay kàddu ñi nga xamante ay analyste politique la ñu euh, démb teer bi xaw a sooxe lool train express régional ndax liggéeykat ya doon ñaxtu doon sàkku yi tamit ci seen naataango mati ñi ngi ñu delloo siwaat ko ca liggéey ba gannaaw lu ñu gisee ne lu ñu ko dàqee moo jaaduwul une Walf Quotidien baa ngi nii su ko defee nag Walf Quotidien lu mu bind ci à la une euh, bu ngeen yëree ci biir yéene kaa bi di Walf Quotidien gis faram fàcce gi su ko defee dañ koy doo rek euh, page bu deux bi nga xamante ne junjoon nañ ko sànq ci à la une bi Idrissa Seck euh, léeg ak jàmm la fas yéene gindi askan wi xëy na ci ay poñ yu baree bëri moom Idrissa Seck jombul dina leeralal askan wi ci diggante mag njiitu réew Macky Sall ci wàllu troisième mandat ndax dina doon candidat am ndax dina jógee Eh, ca conseil économique et social et environnemental ga mu jiite ay laaj yu samp lañu Idrissa Seck eh, war a dem ëllëg ca Thiès eh, waaye nag bu ñu demee ci wàllub yoon juge doyen des juges jël na dossier Assane Diouf tey jii nag ci alxamis gi lay xam fan lay mujjee moom Assane Diouf gannaaw kàddu yamu ne def ko yëkkati woon jëmale ko ci njiitu réew Macky Sall ak nguuram lu jëm ca mairie bu baaw ak coow la faam ba mujjee teeri ji ca tribunal yéen a di Walf Quotidien moo page 3 euh, ci Walf Quotidien ba tey Euh, junjoon nañ ko sànq ci une bi euh, ab euh, procès en appel bu Ousmane Sonko ak Mbaye Niang mi ko kalaamewaat ci yoon bëgg ñu àttewaat dossier gi ay spécialiste ñi seen xam-xam jëm ci wàllu politique wax nañ ci ku mel ni Jean-Charles Biagui xamle ne bile procès en mun naa jur jafe-jafe ci mim réew ndax ñu bari ci askan wi dañoo xaw a am li leen xawuta leer ci doxalin gi ndax dañ ko parax paraxee bile dossier gaawtu ko yóbbu ko appel loolu nag mun amoon tey xel loolu ci ñenn ci askan wi am na keneen tamit ku ci addu bokk na ci tamit uh, kii di uh, Sanogo di analyste politique la mu gis moo ne daal dossier gi ni mel ak na muy doxee xëy na ñu àtte ci Ousmane Sonko mun na fee jaaree ñibbiwaat këram mun na doon ku bokk ci élection yi ñu jëm waaye saay bu ñu àttee safaan ba maanaam. Euh, Sonko dootul mun a doon candidat su ko defee loolee mun naa jur euh, leneen ak leneen ci réew mi kenn ku nekk ak noo koy jàngatee ba tax na Walf Quotidien saay bu luy amee mu jox euh, ay spécialiste ni seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi leneen itamit ci yéene kaa bi révision liste électorale yeeg na mu doxee mu ngi ci wàll Walf Quotidien reportage bu yaatu moom laa ci Walf Quotidien jagleel reportage Ramadan nga xamante ne daanaka ñu doon xool wala boog di leen romb ci mbedd mi ñuy tàllal loxo bi la yoon nag ba ëppi loxo bu yeesoo ñooñee nga xamante ne ñoom lañ doon sarax sarax si nag euh, ful nañ ko ci ñoom am na ci ñeneen ñoo xamante ñu ngi leen di dimbale euh, te tamit euh, ci weeru koor gi dimbalante gi ci diggante jullit ak moromam yéen a kii di Walf Quotidien Euh, def ci reportage mu ngi ñu dégtal yi tamit lu waaju ci ndaje bi nga xamante ne njiitu réew Macky Sall ndaje bi conseil des ministre ak lam ca bëgg ngir xool euh, kuréel yi mu fi jot a samp euh, nu mu fi tëdde ndax seen liggéey def nañ ko déet yéen kaa bi waa ñuy dégtal yi tamit. lu waaju ci collectivité territoriale yi liggéeykat yaa ngi ñaxtu ba léegi Euh, gisaguñu seen bopp ci seen bu liggéeyukaay bu ñu jëlee ci beneen page Walf Quotidien ba tey ñu fekkook suñu mbokku internautes yi seetaan yéen a bi xew ci jamono di Walf Quotidien euh, direction bu SENTER xaw nañoo soofantal grève bu ñaxtu katiya nga xamante ne liggéeykat yi lañu euh, ca SENTER gàllankoor TER bi démb terrain yu bari jotuñoo daw. Euh, gannaaw bu liggéeykat ya fippo xam le ne ànduñu benn yoon ci dàqub euh, Mati Ñing nañ ko dàqee ca train express régional moo leen jaaxal waaye nag bu ñu joxee kàddu gi direction bu SENTER la ñu gis moo ne daal sabotage moo ci làqu ba tax na njiital SENTER dina fas yéene kalaame mbir ya euh, fu mbaxana doone benn mu ngi ci yéene kaabit Walf Quotidien junjoon nañ ko sànq ku bëgg xam ndaje gi war a dox ci diggante njiitu réew Sall ak patronat bi di rel Walf Quotidien conseil des ministres gi woon démb ku ci bëgg a Eh, ci koppar ya ñu ful fas yéene ko dugal ci wàllu wàllub eh, campagne gerte gi jëlee nañ ko ci 60 milliards léegi yóbbu nañ ko ba ci téeméeri milliards bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi eh, Macky Sall ku ci bëgg gindeeku lépp a ngi ci wal Walf Quotidien am na benn une boo xamante ne ba léegi mun nañ cee dikkaat ndax junjoon nañ ko sànq jëm ci procès ñeenti ñeent fukki nappkat yoo xamante ne E, ca Kayaar ak Mboro xeex ak fitna gi fi juddu woon seen biir ba tax na ñeente pe e, juróom fukki ñeent fukki pêcheurs yooyu leen di quarante e, daañ leen atte fu mbaxana doone benn yéen bi moo ñu ko yëggee kawteef nag am ca Kaolack ca googule diwaan ndax lu toll ci téeméeri kilogramme yamba. ak ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ne takk der yi teg nañ ko loxo ca Njaafaat mu ngi ci euh, yéene kaay bi nga xamante ne mooy euh, Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk nii la bindoo euh, ñu fas yéene ko jeexal nag ak li nga xamante ne mooy wàllu sport tàggat yaram fës lool ci jamono ji Sadio Mané ñancoo bu Bambali am jafe-jafe ca clubam mu nga ca Bayern waaye nag jafe-jafe yi ko tënk. Euh, Sadio maane mi ñu ne xëy na doonatul sax titulaire euh, ci googule équipe ndax bari na ci ban ga muy toog euh, ba ko ñaareel bokk na ci tamit xëy na ni Bayern di footballé moom la Sadio Mané miinagul ba ko ñetteel Walf di dikkaat na ci jot naa jot naa joteek ki nga xamante ne mooy waa sànne ba dóor ko kurpeñ loole nag jur na daanaka ñegg ñegg xol ci club bi di Bayern moom Sadio Mané Euh, yéen a bi xëy duñu dégtal tolof tolof yi nga xamante ne mu ngi ko fay dund gannaaw waxtaan gu yaatu goo xamante ne Walf Quotidien amal na ko ci doomu Sénégal ma yëngu ca Bayern waaye nag gàllankoor ga mu am ba taxoon footballul ca mondial bi boobee ba léegi bàyyeegul Sadio Mané ndax na mu waroon a footballé na mu waroon a xereñee ba léegi. Eh, gisaguñ ko mu wane ko ca Bayern eh, gamu ne eh, Youssoufa Dabo ndax ba tey la woon fa woon ñu ngi ko doon xaar ci lu yaato yaatu Euh, moom euh, entraîneur la goo xamante ne ku xereñ la ci football local bi euh, am fu ñu ko doon séntu nag te ba léegi daanaka yeggagu fa yéen kaa bi xëy ñu ko xamle kan mooy Youssoufa Dabo waaye nag ci tënk Sadio Mané mooy à la une Walf Quotidien ku ci bëgg a xam Sadio Mané fu mu toll ca Bayern jafe-jafe ko tënk la ko jot jotaleeg Leroy sànne liiral ma Walf Quotidien ci yéenekaay bi xeetu njëkk yi nji lool te moo ne de eh, jarta laam-laame jarta laaj eh, ñeenti dërëm ñeent fukki dërëm rek lay jar maanaam deux cent francs ngeen am wal Walf Quotidien bu nji lool mun koo liir ci waxtu wu ne eh, comme que équipe nationale moo ko yor te Sénégal mu ngi waajal Coupe d'Afrique des Nations 2024 ca Côte d'Ivoire Euh, dina baax lool ñu liir tey Sadio maane ba tax na jël naa Walf Quotidien fas yéene jël horaire nag wutali e Bambali fa mu dëkk fa mu cosaano moom Sadio maane ñu yendook jàmm Gaynde Njaay mbara wàcc